loo xam ne juróomi baaraam lay am newul ci cëru nit newul tamit ci cëru mala. waa mais loolu juróomi baaraam. waaw. ah wax dëgg yàlla loolu. te chaque jour yaa ngi koy gis. chaque jour koy gis. waaw te léeg mu romb la. xanaa xanaa saret la saret. nekkul ci nit nekkul ci mala. te juróomi baaraam la am. mais attends yàlla moom nit ak mala la sax. te mu ngi juróomi baaraam de. non non non loolu moom yàlla sax ko. li nga laajte nii sa waay ah? nit nekkul si cëru mala. waaw te juróomi baaraam la am. juróomi baaraam la am. gisee eh. du baar. <laughs> sa lay ne juróomi baaraam la. waaw waaye newul ci cëru nit ci cëru mala. Hmm, loolu Fall may naa la ba cinq nga compté waat nga xalaat. juróomi baaraam ah. te newul ci nit. newul ci mala waaw waaye ku <laughs> nekkul cëru ci cëru mala. ah loolu de xaw ma ko loolu moom xaw ma ko moom. la ngay liggéey. man menuisier la te li ma la laaj ne mënoo ko xam. ah waaw loolu yàlla bett nga ma laaj ma boo xam ne jaaxal na ma.